affaire yi commencé nooy ci pour mon président président vous êtes le maire. troisième mandat bi. c'est une demande sociale. population bi ñoo ko bëgg. population bi ñoo ko bëgg vous êtes le maire. gis nga ñun ñun lii mooy suñu doléance. man fii laa Timbo fii la dëkk xam nga Timbo. Air Afrique. salaamaaleykum Air Afrique. non du de kii mooy Amadou Tafes. moo moo dee nag Kër Saab Basir. waaw pont bi dafa yàqu. waaw. waaw monsieur le président. ñu lay ñaanal baax na. ñu lay ñaanal la jàmm. président di nga am ne amul laa xam jàmm dina waa day génnoon police yëmbal bi am na bu tu droit marche baisse directement fële fële Guédiawaye da ngay jël tout droit